ñaanal leen yàlla génne leen waaye way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jégal leen yi fu ci waay mën a nekk naka noonu waaye di bàyyi xel képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaar ñi ko kale ci seen gën gi télé di la 2STV wala seen rajo origine FM 88.4 wala sax ñi ñuy seetaan via YouTube ndax nag euh, jumtuwaay xarala yi bees yi dafa tax ba fu ci waay mën a nekk rek mën ngaa toog di seetaan wala ngay déglu la 2 rawatina seen programme émission kër gi waa bitim réew itam maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm di ñaan itam li leen tax a génn rëcc teef bañ cee am waaye ànd lu mën a xew ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla yàlla na yàlla taxawu leen jàppale leen yiir leen ba ñu mën a dellu si eh, àndandoo ak seenu njaboot ndax ni ma koy waxee saasu su ne rek xolub tukkikat boo xar bu ne rek eh, bëgg a dellu si nga ciy fekk kon yàlla na yàlla defal leen ko yàlla sàmm ñëpp aar ñëpp alors ñu dellu si waat tey jii ci émission kër gi rek di jéggulu nag retard bi nga xamante ne am nañ ko ak euh, bëgg mu gën a baax gën a jàppandal rek loolu moo tax la macha allah ñu xaw a am retard tuuti waaye une heure de temps lay doon ñun ak yéen ñi nga xamante ni yéenay jaaree ci 88 628 14 13 wala 00 221 33 841 23 34 muy numéro international bi. li ñuy def nag mooy sunu invité la ñuy bàyyi mu nuyoo kii di Assane Lo nekk artiste boo xamante ni macha allah kenn dootu ko laajte waaye tam <clears throat> participé woon ci émission bi niki keroog euh, tey jii ñu invité ko ñu bàyyi ko mu nuyoo euh, mbokki téléspectateurs yi Assane bisimilah. Euh, Mbaye maa ngi lay sant di ziar Sénégal di ziar àdduna di nuyu sama fans ak soppe yi nekk Sénégal ak bitim réew partout dans le monde. Mm-hmm. su ma paree ci foofu di profito di jaale sama sama yaay. seen xalif bi nga xam dafa génn àdduna muy magam bu mu bokkal ndeeg bàyyi. di Yoro Fall. Yoro Fall waaw mooy seen mag inspecteur Fall. parce que waaw bu doon servir Véry Ngala. ndeysaan bi biñ ko amagul 40 jours. ñu ngi la koy jaale. donc moom aussi euh, di ko jaal tamit njabootam. ndeysaan di ko jaal tamit inspecteur yëpp ak Sénégal bi yëpp. Mhm. moo fa jógee aussi di jaale sama xarit bi nga xam te ni sama. lépp la woon jegoon ma trop nag yéene woon mu muy Basirou Sow. Mhm. di ko jaale soxnaam si leena aussi. Mhm. yàlla na suuf sedd seen kaw mhm. yàlla na leen suñu borom xaare àjjana amiin waaw ñoom ñëpp ñu fi daw si doon seen kër allahumma amiin su paree foofu nag ma nuyu Sénégal tamit di ziare ñëpp daal ki nga mhm. xamante ni si yaa ngi fekk soo fi nekkoon macha allah ñëpp ñëpp ngi lay fay tabarkàlla macha allah par ma voix ñu ngi lay nuyu di la ci émission kër gi ko waxee di la jaale mbokk yooyu nga xamante ni wàññeeku nañu waaye itam di jaale ñu ni eh, ki nga xamante ni mooy eh, eh, ndijaay maay kon fële ca Dakar Plateau di ndijaay ci ñun di kilifa ci ñun di suñu lépp ñu koy jaale ay mbokkam di ko jaale ay njabootam di ko jaale ñoom xadigéey depuis Canada maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaar di ko masaw papaam xaritam léppam dem na di ko jaale itam ki nga xamante ni euh, mooy Umpa Njaay Mboor moom tam ma nga foofu ca Gueule Tapée njabootuk Sélégué Ibrahima gépp ñu ngi leen koy jaale waaye fàttew ma njabootuk njéeneen ku ci mel ni ñoom Issa ñoom Xalifa ñëpp maa ngi leen koy jaale di ko jaale Ndeye Fatou Diène di ko jaale njabootu njéeneen gi yëpp di leen massawu seen ndijaay jooju nga xamante ni moo fi bàyyi ko te itam doonoon borom kaf doonoon kenn ci ñun di profitoo itam di jaale Sénégal yëpp parce que nag euh, bi sama xarit sama naataango macha allah ñu di ko soxna Daba Boy bi mu wàññeekoo samedi bi passé liggéeyuñu moo tax euh, jotu woñu am temps pour jaale ko Sénégal ngi koy jaale ñëpp nag di ko jaale surtout famem waajuram yaayam papaam ay rakkam ñëpp ñu ngi leen koy jaale mhm. waa Colobane guy murit yëpp daal ñu ngi leen di masawu te xam ni dem la goo xamante ni euh, amaana dina xaw a oyof ci ñoom ndax lu ñëpp seddoo rek naqar bu ko ñëpp seddoo dafay doon loo xamante ni day oyof kon soxna Daba Boye yàlla xippe aljana ñim fi bàyyi yàlla na yàlla teg ci ñoom loxo euh, Assane ñu mhm. ñëwaat ci li nga xamante ni rek mooy réew mi mhm. parce que nag euh, du fi jóg ci lii nga xamante ni moom lañ fiy gis mu doon mbir yu doy waar mbiru gaañante mbiru uh, mettilante mettilante te uh, amaana dama wax ne daw ko du yomb mhm. ndax bu fekkente ni ki ngay bokkal benn kër bi ngay yeewoo moo lay teg li la naxari mhm. daw ko du yomb mhm. foofu laa bëggee ñu ñëwal ci inter introduction en attendant Aristide kaleel ñu suñu élément bi nga xamante ni amoon nañu ko pour samedi passé ci affaire xale boobu nga xamante ni moom la ñu faat euh, foofu ca Sébi Xotaan ma bàyyi la nga ñëw ci foofu ci introduction waaw euh, soxna Mbaye euh, lu am solo ngay wax nii mhm. xam nga Sénégal mhm. toll nañu foo xamante ni xamutuñu mhm. ci kan la neex dëgg la Sénégal kenn xamatul ci kan la neex ci kan la neex ndax kenn ku ci nekk yaa ngi am tiitaange njàqare ak tamit aussi di moytu te lii waral loolu maanaam dafa am lu ñu bett loo xamante ni sóoruñu ko woon dëgg la te loolu nit ñi duñ ci bàyyi xel muy internet bi internet bi daf ñu bett bett boo xamante ni c'est c'est c'est dafa mel ni rek ku toog rek gay na ni bërëb song la nit ñi xamuñu nu ñu koy utiliser dëgg la ba waral tey exemple sutura amatul mbayang dafa am loo xamante ni Sénégal tey mag ñu boo leen yeewoon ñu ne la suñu yaakaar tas na ci ñu bari. wallaahi. maanaam dafa mel ni ñu ne la géwél jur doom doom ja muuma yaakaar gu tas la. géwél bu jur doom jom doom ja muuma. waaw <laughs> yaakaar gu tas la parce que xalaatul woon loolu bëggoon na. dëgg la waaw fi may waxee. Mm-hmm. donc Sénégal doon dëkk boo xam te ni nit ñi amatuñu sens d'écoute. Mm. wax la ñu mën. Mm-hmm. ndax léegi booy wax nit ñi seen problème mooy dégluwuñ la. pour xam la ngay wax. Mhm. mais dañ lay déglu pour tontu la. loolu moo fi nekk. kes kersa amatuñ ko. dëgg la internet ni mu la bettee mooy. Mhm. dangay ñëw léegi mbayang neexuma ma bind saaga la ndey. wallaahi. bi sénégalais demee ba ñi ne police. waaw. joxatuñu orma sëriñ si. Mhm. ragalatuñu président de la république. kon c'est fini. c'est fini. ñi deret mais loolu la. parce que li tax nu ñuy deret mooy léegi amatuñu maanaam yëg-yëg. Mhm, mhm. parce que yëg-yëg mooy xolu yërmande ci doomu aadama. dëgg la bu njëkk ba. Mhm. da daan gis ndeysaan mag ñi dama koy fàttaliku. tabaski bu musaan a jot. bu ñu reyee dinañ toog trois jours seen yaram nagam. wallahi xaru tabaski laax de. am na ba léegi sax ñoo xamante ne dañ leen di rendil. léegi nag léegi raxas ko ba mu set soog leen ko indil léegi nag nit la ñuy rey nag jug di ko bàkkoo ndax nag. ku amul yërmande ci say mbokk mënoo ko am ci feneen. dëgg la. te àdduna nag fi ñu toll nii surtout Sénégal. Mm-hmm. toll nañu foo xamante ni nit ñi bàyyi may sax ñoo leen tane. doy na waax wallaay azim doy na waax kon yéeme na trop ci réew mi yéeme na 88 la 628 14 13 wala 00 221 33 841 23 34 mooy numéro yi nga xamante ni moom la ñuy àndee ak yéen ngeen mën a joxe seen contribution ci li nga xamante ni moom moo xew ci réew mi faatum bakken mi gis nga kooku nga xamante ni Pikine la dëkk itam doomam ñu jël ko depuis altine ba léegi euh, bébé Aïda en ah, feeñ na alhamdulilahi rabil alamin parce que metti woon na ma torop alhamdulilahi rabil alamin nee nañ feeñ na tabarkalla macha allah yal na yàlla nit gone yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoom ñoo dem waaye nag am na loo xamante ni xewoon na ca sebi xotaan dañ ciy dellu siwaat un peu ñu xool mbir mi ni nga xamante ni noonu la demee ak ni mu tëddee gaa police def na enquête am ba pare waaye ndax li may wax rek ki nga xamante ni moo lay def ñaawteef bu fekkente ni yéen a bokk benn bool bi ngeen di añee di ko reeree di ko ndékkee mu wëlbati ko war laa mën a def ñaawteef kooku pour nga daw ko day doon loo xamante ni lu jafe lay doon kon ñu dem ànd ak Aristide avec la complicité de Lay Sarr bëgg ceeb ak ñebe ñu dégtal leen élément bi seetaan ko dellu siwaat asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu leen balu àq leen baal àq xale bi démb démb ci bëccëg damaa dem julli ji ba ñëw ma julli ba ñëw maa ak maamam boole añ maamam añ ba pare ma jël añ bi dem toog fee di añ jàkkaarloog moom mu daw génn mu ma jàkkaarloog moom mu daw génn kër gi bi mu génnee kër gi rakk ji doon na ko topp mu daal di wàññi rakk ji ndekete boobu ndaw si sëy ci kër gi jarbaatu paa bi ar euh, du jabaram moo ko woo moom mu jiitu ndaw si jiitu xale bi daw topp ci ginnaawam benn dàll bi sax mi ko sole ci buntu bitigu paam Moodu benn dàll bi sax foofu la ko sole yàkkamti daw daw caméra bi moo ko feeñal caméra surveillance bi ci it moo ko feeñal mu jiitu léeg-léeg mu geestu ndaw si xale bi daw topp ci moom muy dem bi muy dem mu ngi dem léeg-léeg mu geestu xale bi daw topp ci moom bi mu rombee bitiku ko Cissé ba ci beneen bopp koñ bi fi la jàdde bi mu jàddee it ndaw si dafa jàdd mu ngi bokk doomam ndaw si jàdd xale bi jàdd topp ko ba ci bopp koñ bi mu jàddee mooy yoonu coxo bi waaw ñu àndandoo dem ba ci fi ñuy jaayee caagri bi nee na xale bi jënd na fa caagri man nag mayuma ko xaalis yaaye mayu ko xaalis te boobu heure añ la boobu xale bi dafa añ rek i génn kan ko xam nga ko doyewul caagri dara mu jàpp ci mu ànd ak xale bi jàpp ci loxoom bi mu rombee neex soo bi mm-hmm. continué na dafa continué jaar jëm tàngoor ak xale bi am na ku ko gis ki ko gis nag nee na moom bëggul a wax dafa ragal a wax gis nag gis na ko mu jàpp ci loxo aada mbaay bokk doomam doomam bu jigéen topp ci ginnaawam nii la mbir mi demee dama toog fii rek dégg ay yuuxu bi ma déggee yuuxu yi nit ñi daw na ñëw fii fekk ma fi ma toog ñu may dëfal ñu ne du xale bi ñu ne am na ku dee waaye dalal du moom xale bi xale bu mag la. ci laa leen wax ne leen démb ba tey maa ngi wër sama sët gisuma ko kon su ma déggee rey dafay jaadu ma ne moom la foofu rek laa koy teg kon noonu la ko yàlla dogale noonu la ko yàlla dogale noonu la ko yàlla bëggee sama sët la maa jur baayam gëm naa yàlla 2017 la judd am na ñaari rakk xale bi nag bu dundoon sax bu dundoon sax di ñu delloo si ko ci kër gi sax ñeewante naa ko parce que xale bi bi muy dem dafa am ndoxum siti ay kawas sax la yóbbaale xale bi boobu ba tey ndoxum siti yaa ngi tey jii mm-hmm. laa ko waroon a yóbbu kër sër tey laa jëloon décision yóbbu ko kër sër man nag nangu naa dogal yàlla mm-hmm. gëm naa yàlla papa mm-hmm. sama aada xale bu ma bëgg xale bu ma nangoo jege. démb ci suba. bi mu toogee sama wet buy toogee sama wet. tant que kolewul yaramam ci man rek. du am jàmm dina dandu si ba ci man. taf yaramam sama yaram. musula nelaw te du ci sama kanam la la la la lay nelawe ci sama kanam lay tëdd. ba nelaw ma yëkkati ko yóbbu ko fi mu war tëdd. jëlin bi moo ñaaw jëlin bi moom moo ñaaw moo metti ñëpp moo metti ñëpp dinaa ko muñ dinaa ko muñ ah. ndax xale bi ndax xale bi def lii dëkk ci kër gi ma nekk ak moom ci kër gi mm. jëkkëram di sama jarbaatu jëkkër mm. yaayam nekkoon sama xale bu góor bi mm. nekkoon sama xarit lool mu sóor lu bari ci moom mu def ma ay mitit mitit yu bari du suñu mbokk ki ko takk mi ngi ko takkee ba ndar ndar la xale bu jigéen bi waa ndar la fa la jóge ñëw fii nangu naa dogal bi nangu naa ko bu baax a baax aada sama xarit la aada ku ma bëgg la ku ma jege si sama lal lay nelawe chaque bis bu ne koy muñ nag yàlla ma koy muñ yàlla ngeen ko euh, ñuy masawu bu baax waa sebi ko Sébikotane waaye waa pra euh, ci fi nga xamante ni mooy coxo fa la yëf yi amee woon mu nekk mbir moo xamante ni nag mbir mu doy waar la mbir mu yéeme la mbir mu metti la donc guddi yi ñu toll lu waay di def na nga ko xam ndax caméra de surveillance yi tabarkàlla macha allah nekk na loo xamante ni mi ngi jàppale nit ñi bu ñu demee nag ba nga xamante ni réew mi toll na fii yaakaar naa ni war na kenn ku ci nekk nga wut ko waaye koñ yëpp mobiliser wu itam def ko ci seeni koñ ndax lu fa xew ñu di ko mën a yëg euh, bi nga déggee lii nga xamante ni xew na sëriñ xutaan Assane euh, naka nga ko dundee mooy xale bi non man dama dama dama dama dama yéemu. Mhm. parce que man. vraiment am na am na loo xamante ni dafa dépassé xel. Mhm. surtout xel mu sell ah. xel mu sell surtout. da koy dépassé. Mhm. parce que boo demee ba léegi nga jël doomu jàmbur yóbbu. après indiwaat ko dara du ko dal. des fois nga jël yóbbu rendi des nga jël yóbbu sànni. man dama naan ñooñu dañoo yor jëmmi nit waaye yoruñu xelu yi nit ndax ñooñu bàyyi may sax leen tane. nit dëgg du def loolu ak doom ni mu men ak doomu aadama ni mu men nga di ko jël tiim ko di ko rendi te gis nañ gis nañ euh, ci image yi euh, moom ci boppam mu ngi bokk doomam. mi ngi ko mi ngi bokk doomam jël xale bi je pense. di dem ak moom loolu sax man garaawul mais ni mu tolloo fee woo xale bi xale bi am confiance ci moom di daw di jëm ci moom loolu dawul yaramam. mais mais seen yoon nekku ci lii daw yaram ci nit yow yow yow loolu ku nite la mbayang ku nite. mais am na ñoo xam seen yaram dudul bouger bay daw. <laughs> mais nit ñi gis leen ñuy dox nii mais genn wàll gi yëpp nee naa la Sénégal nañu moytu nit ñi comme ni ngay moytoo nag bi daw si ñëw. mais ki nga xamante ni moom nga bokkal kër muy sa wujju peccor ko. Mhm. seen ñaari jëkkër bokk est-ce que kooku mën nga koo daw. waaw mais noo xam nga des fois ragal moytu day xawoon droog ragal mënoo koo daw ci mesure wu ngeen bokk benn kër di defante lu baax. waaw mais nag boo demee ba ci lu bon di ci rax. waxuma la daw waaye ba xëy na di nga ko def. surtout que rakku xale bi jëkkoon na ko jël dugal ko ci. foos dugal ko ci foos. donc la loolu kon signal la fort. Mhm. et pourtant bi mu ko defee nuyoo woon na mais dañ ko bay bayal xam nga senegal lan moo ñu sonal mbay. waaw. maslaa. ak nëpp nëppal. ak nëpp nëppal. Mhm. nañu bàyyi rafetal. dëgg la. yàlla xamul lu rafet lu baax la xam. Mhm. te lu lu baax dafa gën lu rafet. dëgg la te ñun dañoo jël lu baax teg ko de côté bëgg a jël lu rafet nag def ko nag suñu emblème booy xëy naa la ndeysaan lii moo rafet mais c'est dangereux Mbaye nañu moytu réew mi toll na foo xamante ni mbayang mm. waxuma la jël doomu jàmbur di nga gis ku jël jëkkëru jàmbur sax fekk ko ca lal mu tëdd ak soxnaam mu yenn ko mbokkam yóbbu boobu boobu dina am de yenu jëkkëru jàmbur. waaw dina am <laughs> yanu jabaru jàmbur yóbbu yanu rakku jàmbur yóbbu yanu magu jàmbur yóbbu maanaam signal la te li may wax nii peut-être du neex a dégg. Mhm. mais réew mi toll na foofu ndax mbay léegi da ngay wax ak nit ki gisul dara. xam nga la lay mhm. jox ma amoo faalewuma la. les gens sont aigris kenn sañ seetul lu rafet parce que kii apprécier da koy def parce que. Mhm. romb nga ko. mais bu sañoon doo ko def. Mhm. na la yërëm. Mhm. na la yërëm surtout. wallaay parce que nangu wuñu. ndeysaan ñàkk nangu nag moo ñu sonal ci réew mi. moo ñu sonal imber da koy wax ne bëgguma ndeysaan. noo baaxul ku ne da nga ko war a daw. non ndeysaan ci musique dong la jekk. ndeysaan ci musique rek la jekk. ndax ca la yaram di dawee. ndax ca la yaram di dawee. mooy numéro yi nga xamante ni moom la ànd ak yéen euh, Assane la ñu àndal tey mu nekk un artiste di jouer théâtre am nañ ci part de responsabilité ñoom dinañ ci ñëw euh, mbokk ngi noonu asalaamaaleykum. waaw soxna si na nga def. dinañ ci ñëw. Euh, maa ngi ziar maa ngi delloo ziar bu baax tur bi ak fay woote. waaw dama koy leb c'est juste amin amin amin am ndeysaan amin waay. jërëjëf merci beaucoup ndeysaan jërëjëf. Euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk moom mu ndeysaan dafa leb tur wi waaye nag euh, ñaan rek moo ko yëkkati woon yéen ñëpp yokku leen ñaan rek tabaarkàlla macha allah ñuy ñogor ñogor di ñëw di àndandoo ak yéen ci li nga xamante ni mooy seen émission kër gi numéro yaa ngi noonu ngeen mën a wéy di ci jaar euh, ñoom wax naa leen ñoom am nañ ci part de responsabilité responsabilité yi nag kenn mënut a xam foo ko situé parce que man li ma jaaxal d'abord xamante ni moom moo fa xew mhm. euh, tabarkàlla loolu moo tax tey ji ñu ànd man ak yow rek ci plateau bi mais ça suffit largement ndax war nañoo mën a waxtaan tabarkàlla macha allah mhm. ma gis ne euh, euh, maanaam bu fekkente ni gis nañ ne rey nañu nit su ñu reyee nit deux jours après rek jàpp nañu ki ko rey mu avouel boppam kii déjà dinaa ñëw ci kaam dama bëggoon def yaayam lu ko naqari moo tax ma jël xale bi non seulement yaramam dawul ci bi xale bi daw di ko toppi ndax xale ku mu bëgg lay daw di ko topp nga waroon a mën a xool ci loolu nga yegg jël paaka waañ boo xamante ni da ko préparé yaa nga ko yoraale woon dem yóbbu ko ci tabax et puis def ko noo xamante ni mais <coughs> est-ce que fi mu nekk jaaduwul ñu reyal suñu bopp xaru tabaski ah yéeme na de yéeme ah, finalement bu fekkee nag kay nit ngeen di jaawalee eh, nit la ñuy jël tiim ko di ko rey. surtout jigéen di ko def égorgé. ah non kon jigéen kon war naa mën a rey kon xar ko. parce que man sadik weesuwul loolu xam nga des fois des fois ma dégg olof di wax naan kii dafa néeg néegul dañoo kër parce que néeg yamul ci loolu ñi dañoo kër ah. ah néeg maanaam chambre ñu. waaw non chambre ñi dañoo maison. <laughs> parce que foog ma tekkil ko sama gars yi. waaw parce que parce que mënu ma comprendre man ba tey <laughs> phénomène bi am Sénégal mbay ak réew mi toj na. te mbayang li toj réew mi. mooy que nit ñi amatuñu yërmande ci doomu aadama yi. maa koy wax di ko waxaat. te li indi loolu mooy révolte. ñàkk da koy indi. xiif da koy indi coono da koy indi ci réew. mais dañ ne wet gore wetali ko gore. waa mais loolu dafa jeex. boo amee gore boo amul gore. loolu dafa jeex nag parce que booy seet réew mi am na nag ay baadoolo yu gore. dëgg la dëgg yàlla bu baax. waaye nag booy seet nag baadoola yi gore bareetul. mu mhm. ngi en voie de disparition te jeex nañ sax. ñi mhm. ci des ay un et demi la ñu doon wala deux. ci Sénégal fi mu toll parce que li ko indi mooy. mooy euh, mbayang mhm. nañu waxtaan. dafa njëkkee ci mag ña. di wàcc ba ci génération bi. mbayang Sénégal li ko tas. te loolu mu ngi soog a fayu rek léegi nii nii nii. bu njëkk ba mag ñi dañ daan wax naan sa ndey ko fi liggéey. ndey ju liggéey. toj na réew mi. ndey ju liggéey. ah woy toj na réew mi. ci naka. maanaam euh, Mbaye. Mm-hmm. yàlla ay wërsëgam moo ko yor. Mm-hmm. Mm-hmm. te wërsëg du seexlu. déedéet. ku ko wërsëg seexluwut. ku ko neex la koy jox. wax nga paquetu dëgg. nit kuy juddu. ak na ngay ñëwee. na ngay demee. ñun ñëpp on est né handicap. ñun ñëpp ay handicapé lañu bi ñu judd. dëgg la. mënuñu. te moo ne ñi ngi xeeb handicapé yi. dëgg la. wallaay dëgg la. bi ngay juddu. dañ la jàpp. Mm-hmm. ngay tëdd di jug mënoo jural sa bopp. ngay jàppandu di raam. Mm-hmm. ñu naan xale baa ngay raam. ngay jàppandu ñooy teete mm-hmm. ngay dox. sunu boroom di ci ànd. nga dem ba jëm mag. yori bant handicapé baa ngay ñëwaat. ma ngay ñëwaat nga dem ba mënatoo jóg mënatoo bouger ba ca gën a yéemu nag mooy dañ lay leewi dugal la ci pax. kon nit na am conscience. bu toll ni yenn yi jaru ko fi. jaru ko wallaay jaru ko. te gis nga li may wax ne la sa ndey ko fi liggéey. Mm. da gis ku am ñetti jabar ci kër wala ñeenti jabar. ñu dem ba doom yu juddu. Uh-huh. ku ci nekk ak na ngay juddoog sa wërsëg. Uh-huh. borom kër ga ci boppam nga xam moo war a àtte dëgg. Uh-huh. bu demee ba jeng mënatul day seet ka ca doomam tekki. mu ne ko sa liggéey dëgg la. nga toog nag yàlla ma yàlla baal xastewu ma waaye sunu mbokk géwél yeeg ñeeñoo yeeg ñenn ñi ñëw xew am. ñu taxaw nekk ko sa ndey ko fi xaar moo ko liggéey. ak njëkkëy rambaaj yi mel ni man <laughs> te loolu yàq na réew. wallaahi azim am na ci koo xamante ni xëy na. waaw liggéey. waaw ba génn àdduna. Mm. ay doomam tekkiwunu mais sunu borom la. sunu borom la ñu jël kii ci ligne bi 88 la 628 14 13 mbokk asalaamaaleykum allo salaamaaleykum. waa doom booy noo def. maa ngi delloo ziar bu bi ak fooy woote ah aram aram yow rek la déglu maa ngi lay delloo ziar aram lu bare bare hmm, hmm, hmm. dëgg billaahi maslaa bi wallahi al azim ndeysaan ñëpp la metti kuy jaboot ku ne metti na la ndeysaan ndeysaan eh, réew mi réew mi dafa doy waar de ak na muy dawee topp ko di topp ci ginnaawam ndeysaan ndeysaan Mhm. war nañ ko xoolaat. ndeysaan ñaaw na. mais métti na métti na trop maa ngi koy jaale seen waa kër di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. amiin yaa Allah te yaayam yàlla may ko xolu muñ. te yaayam tamit yàlla may ko xolu muñ. ndeysaan métti na torop am na solo. merci beaucoup. merci beaucoup. merci beaucoup Aram. ñu ngi lay delloo ziar bu baax soxna Aram. ñu koy jaajëfal bu baax a baax soxna Aram métti na métti na ku mu mënti doon ñu ci profité itam di dem ba fële ca Espagne ca diwaanu Almeria di masawu sénégalais yi nga xamante ni ñoo fa nekk ndax semaine bee gis nañu benn sénégalais boo xamante ni jeune la ñaari jeunes yoo xam ne xamante nañu mës nañu bokk sax euh, nekk doon ay sénégalais. bokk bërëb bu ñuy jaayee waaye kenn ka yàlla na toog ko mu faat kenn ki image boo ko gisee sa yaram day daw ak waa ji ni mu tëddee ci tali bi muy lu doy waar lu metti loo xamante ni dootoo comprendre sénégalais waaye nag man bu ma demee ba jigéen bokk ci man man jigéen ne day égorgé euh, euh, sadik am na te nag euh, wax naa la li nga wax sànq ne lu feeñ ci say nuyoo woon na ci ngoro mm-hmm. dañ koo fayul affaire bi dañ koy bay bayal man wax naa la ne la bu ma dee dëkkeeg nit ngay jigéen wala ngay ku mu mënti doon soo séenee mbóot sax boo koy rey xol bi nga ci àndal ci nappaaje mhm. man dama lay ragal sadig la parce que néeg baaxul te am na geste yoo xamante ni nit da koy def nga war a xam ni kii am na lu mu capable nga mooy tundiku ah mais mooy li ma la wax xam nga ñun Sénégal la ñu jël rek boo waxee ñu la jigéen ñu néewal ko doole jigéen nit la naan ni weenam sëgee la xel yi sëgee. loolu ay waxu picc la rek fan yii fàtti fi am kat jigéen ñam. mais jigéen ñi ah. rek koy def. yow xanaa xamoo ne tey wax leen wax ñu wax leen ñu lu leen ne. xanaa xanaa xanaa xamoo ne. gis nga. dafa mm-hmm. am yoo xamante ni. Mm-hmm. dañuy foog ne yërmande la te du yërmande. du yërmande. non loolu du yërmande am na ñoo xam bu leen yërëm. mel ki ci ligne bi allo. allo ñoo yërëm. allo. oui ñoo ñu ngi fi ñu ngi sant bu baax sax. daj. maa ngi ñu ngi lay delloo ziar lu bare bare. daj maa ngi yaa ngi woote. Gabon. Gabon tur bi. maa ngi woote Gabon. Gabon ay ca bisimilah yow rek la déglu. Gabon. Gabon bi. vraiment émission ah mbir mi daal doy na waar vraiment. doy na waar. yàlla na ko yàlla yërëm. allahumma amiin xare ko aljanna. amiin ndeysaan amiin. yaa barke nag. amiin amiin. en tout cas ñu ngi leen di déglu bu baax ba tous les jours. jërëjëf merci nañu bu baax a baax. ñoo gën a kontaan ci yéen. merci jaajëf. ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi Gabon ci sous région bi Afrique gépp mhm. euh, votre fidélité euh, votre fierté fidélité notre fierté loolu yéen a ñuy tax a sawar saa su ne parce que nag euh, da ngeen a fidèle ci la 2STV donc buntu baa ngi noonu ngeen jaar ci am na ñoo xamante ni jaruñoo yërëm déedéet lu tax waa parce que xam nga du du du ñëpp nduroo melokaan tey du ñëpp <coughs> mhm. mhm. tolloo mentalité dëgg la dëgg la te du ñëpp nduroo jikko mhm. ndegam doom yi ngay jur sax ci biir kër mhm. kenn ku ci nekk ak jikkoom wallahi kon bul yërëm déedéet gis nga euh, lii tey xew ci mhm. jamono ji en 2022 lu amoon la yaa 30 ans 40 ans 50 ans day soog a fay day soog a feeñ day soog a feeñ waaw nañ ko nangu d'accord te bu ñu tëb mu am de ah bon ah non am na ñu ko fi liggéey fekk ñu leen fi am na ñu ko fi liggéey dem nañu ba ko fi loolu moo répercuté wu. ni rey bare nii Dieu est juste. yàlla dafa juste. Dieu est mhm. te suñu borom. Mhm. Euh, allo. sa émission ni mel. allo. macha allah allo oui. waaw. kooku. man la Mimi. Mimi. waaw. Mimi maa ngi leen di fay woote. maa ngi wootee Géejawaay. Géejawaay. waaw. bëgg participer Mimi. oh là Mimi dagg na ñu koy xaarandiwaat ci 88 628 14 13 waa Géejawaay banlieue bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. nga ne lu fi amoon la. fi amoon la. gis nga jumtuwaayu xarala yi moo ko feeñal wala. gis nga tey. Hmm. dama lay jox benn secret. waaw. ku toog la 5 la 4 la 3 nga fayeku rek. waa da nga liggéey du premier. waaw salaire la buy soog a wàcc. buy soog a wàcc salaire mënoo commencé tey ñu fay la ko tey. dëgg la da def du lundi au du euh, vendredi. kon lii nga gis ni pay pay sunu ah borom la ah non pay la boo xamante ni nit ñi nañu def très attention tamit pour ñi nga xamante ni. Hmm. ñi ngi ñi ngi sëy ñi ngi ne ci àdduna bi pour 2030 2035 di war a ñëwaat day fayaat rek Dieu est juste gis nga li xew ci réew mi nii. waaw non du yàlla moo ko fi def. ate bor fay. ate la. d'accord dafa am loo xamante ni Sénégal dañuy jaawatle lu duuf ak lu yi duuf ak neewi sama classe gi xam problème bu rëy nag la ñu am ci lool tey sénégalais yu bari boo leen tegaloon ne leen lan mooy lu duuf ak lu neewi xamuñu ko. dañ naan junki na rek. merci beaucoup. <laughs> parce que aussi xolub iñaan gi am ci réew mii mm-hmm. ak saaga ndeyu jàmbur yi am ci réew mi. ak mm-hmm. kilifa diine yi ñu ñàkk mm-hmm. respecté. ak di wàcc ci tali bi xool yëfu jàmbur toj ko <coughs> rey nit. jam nit songu nit wala taxaw ci télé bi jàkkaarloo nit wax ko li nga koy wax ci ay waajuram non y' problème. ci kilifa y' a problème y' yaa problème non problème. xam nga léegi dootuñu pour ñu dugg ci temu kër gi sax day jafe. mais trop wax ci sëy yi wax ci njëkkee goro day jafe parce que xam nga lu tax toujours réew mi nga gis fi loo xamante ni lu mel nii la nga war koo wax. mais toujours mbokk asalaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay ziar. ñu maa ngi sant yàlla tur bi ak fay waaw tur bi xam naa la ma koy def. lebal naa leen ko. waaw kay maa ngi lay suñu jaajëf ko. waaw Assane mi ngi fay bu baax ñoo ngi maskawu yaayu xale bi baax a baax. Mm-hmm. parce que léegi li suñu nijaay bi wax rek. Mm. xol yi ci boppam léegi ñu lëndam. dëgg la ci liy suur yi di ngay bokk moom lënd naan te yéenewu la lu baax. gisul lu dul sa toroxtaange boobu mënoo koo xam déedéet mais dañuy jël lépp rek teg ci loxo yàlla te di muslu ci ndax euh, mere ndey rey doom mooy rey nga ndey bi parce que doom ci xol la jóge bokk sa doom aussi am na <laughs> waaw sa doom eh, nga xam ne boo arraché xale bi mais boo demee ba tiim nit di ko rey te bokk sa doom xalaat sax moom ba muy leen doomam bi mu jur ci biiram. wallaahi jiwul xool ko. wallaahi. bu boobaa xanaa nga dawalaat sa xel sax sa paaka. Hmm. daañal xale bi blessé ko ci li fay mal sax yaayam sax dina am lu ko metti. Hmm. waaye arraché ko pour toute une vie. Hmm. mu xam ni benn ci doom la jële ko àdduna bi. moom ci boppam la àddunaam yàqu. yàq na àdduna yàq na àddunaam yàq na àddunay njabootam. yàq àdduna njabootam tamit. sa woon diw. billaahi na waax metti na lool waaye ñoo ngi sant yàlla di naan di wax nii mm. nañu toroxlu tey def ay astafurlah di naan wallahi wallahi lazim wallahi lazim wallahi suñu doom buñ génnee jaay mi sax du xalaat mm-hmm. te ñuy jéggale di baale da bañ a wutal suñu bopp ay noon wallahi képp ku am koo xam ne am na danga koo mere waa léegi kii ñu jëm jër xatal ndax nit ñi ni ñuy vengé woo garaaw na. Mhm. te metti na. metti na yëpp lu ngeen leen di ñaanal yaa nga leen yàlla defal jàmm. amiin amiin allahumma amiin seen toog di ko waxaan waxtaanee di ma ko yedd bu su nekk yal suñu borom may ay xelu dégg. allahumma amiin ndeysaan jërëjëf yal ñu ko yàlla boole. yal ñu ko yàlla boole ndeysaan jërëjëf ma di leen jaajëfal bu baax a baax man xaw ma lu tax ñu baax toujours ñu ngi ñaan ñu ngi koy yónnee ay message mhm. ñu ngi def lépp pour bëgg rek saa su ne ñuy wéy di jàkkaarloo ak ki nga xamante ni mooy soxna Mbaye ak mhm. moo tax ñaari fan yëpp girib bi soj mi daf ma sonal mais dama ne du ma soox rek dem liggéeyi ndax wax dëgg yàlla askan wi bu ñu la gisulee gisulee ni ñuy inquiété woo loolu rek dafa doy sëkk ak barke mhm. donc euh, ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ñu seetaan mu wax lu am solo ndaw si yàq na àddunaam te man euh, gis nga euh, vidéo yi li muy bari yëpp seen dëkkandoog papay xale beeg ñëpp wax nañu mais yaayu xale bi lay wan ne la ku réglé la ba suñu jonn yàlla tey kenn gisu ko kenn dégg ko mu wax man boo gisaguma ko xëy na dama toppul internet bi mhm. mu mel ni que léeg différence suñu léeg-léeg da dugal ci kër ñaari jeeg yoo xam ne kii de yaru ba mel ni ndox mhm. kii ci des mel ni xatilan mhm. ba pare néeg teg ca da taxaw léegi mu àttana defanteeg yow yor kuur wala mu teggi ci li mu doon yi mu yor attan la ko sotti. Mhm. lan wax nga ba dee de mais foog nga ñëwul ñu ci lan moo ñu pikiir. non dara pikiiru nee nga démb démb woon. dara pikiiruñu gis nga nit ñi. nit ñi nee ay jinne la ak ay affaire yooyu non gis nga jinne bareetul ci réew mii. ndax nit ñi ñooy jinne léegi parce que kenn joomeetul xam nga gis nga naan naan non xam nga non non euh, <laughs> Mbayang waxtaan nañ ci nañ ci wax di nga xam moo fi ne mhm. Sénégal nañu bàyyi bu ñu toogee ci télé bi exemple wala grand place wala benn milieu. di waxante lu rafet te war a wax dëgg gi. Sénégal problème boobu lañu am problème mu dëgg. problème mu dëgg. problème mu dëgg la ñu am. kenn a ngi noonu ci ligne bi 88 628 14 13 mbokk salaamaaleykum. allo. allo. waaleykum salaam. Euh, sëñ bi ñu ngi lay ziar tur bi ak fay wootee. waaw maa ngi lépp maa ngi Gambie yaa fi di leen nuyu. yaa ngi. maa ngi Gambie Gambie. Gambie. waaw. ñu ngi nuyu waa Gambie yëpp. mbaa yéen a ngi ci jàmm rek. ayca bisimilah. waaw dégg nañ seen programme bi seen programme bi defe na lool. merci beaucoup merci. ñi nga xam ne gaañu nañ ñu ngi leen ñaanal yàlla na yàlla yërëm. amiin amiin yàlla na yàlla xare leen aljanna. allahumma amiin. waaw ki xam ne sa doom moo gaañu yaayam itam yal na ko yàlla may xolu muñ. allahumma amiin allahumma amiin mbokk. waaw seen programme bi euh, am na intérêt bu baax. ndeysaan. waaw itam ñi wax ne comme waa ji mi ngi wax comme lu yàqu nit ñi. man dem li ma ci yaakaar daal xam naa théâtre kat yi tamit bokk nañ ci loo xam ne lu yàq réew mi tamit théâtre. Mm-hmm. théâtre kat tamit bokk nañ ci. Mm-hmm. sooy nekk euh, di théâtre da nga am na yoo xam ne war ngaa xool li ngay joxe ci théâtre bi daal. allo allo waa gàmbi ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal mbokk yi nga xamante ni ña nga Gàmbi ñoom tamit dañuy àndandoo ak la 2STV maa ngi nuyu na bu jen yaay ministère sama yaay sama mag sama xarit sama lépp maa ngi koy nuyu bu baax a baax yaayu xadi di ko ziyaar di ko kontaane di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ñaanal ko itam ki nga xamante ni moom mooy sën seen mm-hmm. artiste comme yow ah mais non maman sën barke Seydina Mohamed àddina bi xamuñu kan mooy seen. ndeysaan sama waay la. bala ngaa xam kan mooy seen rek nga jëflante ak moom. ndeysaan ci ngay xamee kan mooy seen seen. ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla na ko yàlla guddal fanam wéral cëram. bàyyi ko mm-hmm. góor sëgam. ñaanal ci itam ki nga xamante ni mooy Baye Ili. Mm-hmm. Eh, di ko ñaanal yàlla na yàlla fëgg boppam. waaye fàttewuma ki nga xamante ni mooy Oustaz Mbacke Sylla Alioune Sall ak Alioune Mbaye. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen kontaane. Eh, eh, lu doy waar daanaka dëkki Afrique yi nga xamante ni ñoo ñu wër sax man jàpp naa ne lii xew Sénégal xew fa waaw xam nga loolu d'habitude damay dégg Sénégal dara daf fi daan xew ñu ne njaysaan sunu sunu sunu étranger yi la. Mhm. loo wax ñu rey rey sax bu am sañu naan la non waaye ñiy def lii. dëkkuñ mhm. ci réew mi. Mhm. <laughs> léegi ñu koy def ci réew mi la ndëkk. léegi kon y a problème Mbayang gis nga. Mbayang ñoo bokk kër. Mbayang déggu ma la wax Mbayang ki la jamono ji ki la sàcc daf lay xam. waykat yi toujours ñu way ko. dëgg la ku rey say mbokk say noon jeex. dëgg la gis wax jooju mooy lii parce que di nga nekk nit kër gis nga léegi bokk ak doomu euh, nit léegi. Mm-hmm. papa yaay. Mm-hmm. du dara bokk fanaan la bokk bool boo leen lekk la rek. deret amatul solo ci réew mi ñu toll nii. jamono bi ñu toll. mais ndegam sa frère wala sa sœur. waaw. mooy xam sa métit xam li ngay dund mu génn di ko jaay ci biti. di la toogaane. ki nga bokkal ndey ak nga bokkal ndey ak baay sutura amatul. kon da xaw ma fu ñu jëm. kon looloo lay wan na la nag nañu bàyyi maslaa gi tey waxante dëgg. boo ko fi defee dof lañ lay teg. ñu jël hmm? ki ci ligne bi soog ko détaillé mais nag teg ma dof moo ma gënal man nga teg ma métit. Ah, vraiment allo. allo. asalaamaaleykum. maaleykum soxna si tur bi ak fay wootee. ah Dieynaba laa tudd waa kontaan naa dama laa gis télé bi rek kontaan. ndeysaan wóor na yàlla <laughs> Dieynaba. wóor na yàlla dañu laa namoon macha allah ñëwaat naa maa ngi nii. aywa kontaan nañu trop kontaan nañu trop. <laughs> macha allah alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla jox ñu ngi sant. Eh, eh, amiin kontaan naa ci yéen. maa kay macha allah merci merci merci. ndeysaan. jërëjëf. jërëjëf Dieynaba dama laa gis ne wóor na yàlla man tey daw il faut ma dugg ma ma ma woo la. ndeysaan kontaan naa. ok jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna ba ndeysaan maa leen gën a kontaan mu ngi may jox kàddu ki nga xamante ni sama benn xarit bu ñuy wax tàkko baal ma nga foofu ca Bababe ca Mauritanie maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko kontaane waaye di kontaane ki nga xamante ni mais mooy maire ummi dëkk fële Sébikotane di yaay ci moodu Ndiaye bu Espagne ah, di goro ci astu Astoubal maa ngi koy nuyu bu baax a baax maire ummi di ko kontaane yaay Sey Ndiaye di ko ñaanal rek yàlla ko fi yàlla bàyyi mu yàgg di ma ñaanal parce que nag ñaanam am na solo ci man lool Euh, euh, ñu teg la dof moo la gënal euh, ñu ñu di la teg métit foofu laa jeexale woon. mais dafa gën. waaye nag yéen da ngeen part de responsabilité. maanaam. parce que yéen ñi nga xamante ni yéen yéenay def théâtre mm-hmm. est-ce que seen théâtre yi di ngeen ko jël di di def côté sensibilisation nde lu leen waaye jiiñ nag tooñ leen. Mm-hmm. mais sëb bu taatak boor bu ne lañ koy taale. te fi ne xamatuñu fu ñu jëm. dëgg la. xamatuñ ñu jëm. dëgg la est que jotul yéen tamit théâtre yu mel noonu ngeen di ko def di ñu ñaaxal suñuy doom ñu war a mën a moytandiku waaye itam di ñu ñaaxal itam nit ñi ñu war a mën a dalal seen xel te xam ne xëccoo jarul yenn yi balaa caag ma effacé wu bàyyi la nga toog. mbayan mbayang bi théâtre di am. waaw euh, tele mi ngi am 72 non. waaw. 72 ba léegi théâtre a ngi am. waaw mais est-ce que booba meloon na ni. mbayang dafa gën a raw. et pourtant booy seet jamono jii ñun li ñuy joué. waaw dafa tombeek jamono. ñu koy jouer parce que aussi euh, dañ ne nen boo koy omelette il faut nga toj ko. waaw maanaam booy jouer léegi dangay mel ni ñoom jouer li ñu bëgg ba pare jàllale say message mais nag mais nag xaaral ma ñëw xaaral ma xaaral ma jël ki ci ligne bi ba pare mbokk asalaamaaleykum parce que seen seen bi ma doon wax léegi góorgóorlu tabaarkàlla ba léegi daf ñuy neex. Mhm. Euh, te ci ay baraag lañ ko joué mbokk asalaamaaleykum. waaw yàlla asalaamaaleykum. waaleykum asalaam sama sëriñ tur bi fay wootee. Euh, Libreville Gabon. tur bi. Euh, Aliou Ba. Alioune Fall. Ba Ba. Alioune Ba. waaw. ayca bisimilah Ba sa xalaat ci thème bi. waaw euh, ci bi vraiment kontaan naa ci seen thème bi trop. Mhm. chaque jour maa ngi sa émission émission bi mhm. di participer. ndeysaan. vraiment kon li ngeen di wax ak dugub vraiment am na solo trop trop trop. al Alioune yëkkatil kàddu gi yéen a ko moom. li ngeen di wax ak dugub. seen hmm, dëgg la am na solo. Hmm. vraiment kontaan comme le gars yi nga toogal li mu waxtaan. Hmm. wax na dëgg. wallaay wax na dëgg. billahi wax na dëgg trop parce que souvent Sénégal da nga yaakaar nit ñi. xamuñu dëgg maa bëgguñu dëgg. wallaahi. xam nga Sénégal bi damaa yaakaar partenariat bi moo bañ seetla li ñuy léegi bëggatuñ ñu tëj. Mm-hmm. soo gisee nit li ñuy doxalee léegi. vraiment mm-hmm. dafa mel ne ñi muy nit ñi léegi kenn mm-hmm. dafa mel ni amatul di amatul dara. dara waaye def wax waaye def def. kenn yërëmatul kenn. waaw dañu war a delloo lépp ci yàlla. ndeysaan. xool adduna bi dafa jeex déjà ba pare. dafa jeex walaay jeex na ba pare. billahi li nekk Sénégal Sénégal rek la nekk. Sénégal rek la nekk. mu wax tànk de presse rek li ñuy di wax Sénégal li ñuy coow Sénégal. boo hmm. génnee foofu billahi doo coowee noonu. wallaay. da gis affaire yi métti la. Hmm. xam nga réew soo fi nekk il faut mu am jàmm. Hmm. nit ñi waxante dëgg. tant que nit ñi duñu wax dëgg duñu ne duñu mën sa nekk si jàmm. dëgg la wallaay wallaay wax nga dëgg. loolu tax dañoo ñaan sax. wallaay wax nga dëgg. yàlla nit ñi del nit ñi dañu war a delloo seen xel ci yàlla. Mm-hmm. tey waxante dëgg. waaye nekk ci nekk rek bëgg a puus moromam puusal mu toog mu toog loolu ak euh, euh, euh, réew bi du fee noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. surtout li may bëgg yi respect. tant loolu amul ci réew réew boobu dama respect jamais. biñ lay ñàkkee wormaal ak léegi day ñu ngi koy gis. il faut loolu am déjà loolu amul ak loolu du war a a jox respect ci la mag. Mhm. léegi loolu sa léegi fekkee loolu amatul respect da presque soo léegi par exemple nit ñu mel ne même soo am na kooku di respecté baayam maa di respecté ndeyam mhm. soo respecté sa ndey ak sa baay soo si yoon bi soo gisee mag rek da nga koy respecté dëgg la wallaay la nu mu mënti mel nu la ak nu mu mënti mel wallaahi léegi xale yi dañuy yaakaar par exemple adduna bi moo tëddee noonu léegi adduna bi lépp lépp dafa métti ki la waxul adduna bi dafa métti rek waxul la dëgg. dëgg la dëgg la. jërëjëf lépp métti lépp cher lépp métti du l'état di leneen presque balaa ngay xam loolu ba nekk ci àll. Mhm. da ngay gis nit ñi di na di muñ dañu xam vraiment adduna bi léegi soo def Sénégal par exemple les États-Unis Europe lépp c'est la même chose. jërëjëf ba yàlla yàlla li def ba amiin ba man nag sama supporter Baye moom sama ticket euh, sama supporter rek sama taaw Mbaye la ndeysaan macha allah <laughs> ndeysaan jërëjëf <laughs> jërëjëf Bapulo merci beaucoup merci beaucoup maa ngi nuyu waa yëpp Libreville maa ngi leen di nuyu fa lay wootee moom Aliou Ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko kontaane di kontaane képp koo xamante ni yaa ngi ci dëkk yooyu waa kongo maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar jamono bi mag jama nga fa maa ngi koy nuyu di ko kontaane euh, Batora Kane maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom tamit foofu la nekkoon ci kongo maa ngi koy kontaane di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal suturaak ak euh, xéewal euh, fan la problème bi nekk problème bi mooy li ma lay wax sànq. Euh, ci théâtre bi gis nga xam nga fan laay waxee. jamonoy yi tey daf fi jàll. waaw daaree Kocc ñëw fi. ñëw ñun moom la ñu seetaan. ñu doon yedd nit ñi. ñun ñi tam moom la ñu seetaan. baax jamono jii ñëw. koo ci tegaloon tey la la daaray Kocc doon joué. Mhm. du ko seetaan intéressé wu ko. parce que léegi li. loolu ngeen yaakaar. non non non non non déglu ma mbay ak li may wax c'est euh, très important. jamono génération bii koo ci taxul théâtre ne ko dalay yedd du ko seetaan parce que télé léegi ci poche la nekk télé poche bi moo na nit ñi waaw bu njëkk ba télé danaan taxaw mardi théâtre war a daw ñun ñëpp ñu toog xaar paa bi toog maire bi ñëpp kër gi di seetaan waaw muy éduquer nit ñi waaw moom la ñoom tafaa Diop doon joué waaw yaxara waaw day sànn ay ñoom ñëpp day sànn ñooñu ñun ñoo doon suñuy référence mm-hmm. mais àdduna day dox bu àddina dee dox da ngeen war a jouer théâtre di di di fóonante. waaw non non non àdduna ni muy non non non àdduna ni muy doxee la xam nga xam nga. xam nga tey non non non non non Mbaye bu foofu xam nga tey Mbaye. tey xamoon nga ni dinaa la attaqué. waaw mais Mbaye. Père Seck moo ne naa la attaqué. non man xam naa ne moom mooy def loolu père moo ne la bu ñëwee. sama ko Père Seck ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nekkoon ci kër gi di borom ñu jël kooku ci ligne bi ak ne ko allo. allo. allo. waaw ah, salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si ngi sant yàlla bu baax tur bi ak fooy wootee. man damay leb ñu ngi delloo ziar ay ca bisimilah. alhamdulilah seen thème bi am na solo lool macha allah. ah. mu ne suñu thème bi am na solo lool macha allah. merci beaucoup man na li ma si gis maanaam xalaat bi ma am mooy. waaw. maanaam àtte bi moom yomb na trop. yomb na kay. waaw ndax yàlla mooy comme kuréel na la moom. waaw. damaa jàpp ne ndaw si dañu xale bi rek mu coow la <laughs> mu ni waaw loolu daal mooy àtte daal comme comme moom dañ ko a rey comme comme moom te kat li ma ci jaaxal mooy ku rey tey buñ la jàppee suba bu ginnaaw suba nga ne man la nangama tax ma def ko. maa la wax li leer na nañ. yow daal ko da gis ku rey ñu rey ko. waaw ku rey ñu rey ko daal ba mu rey xel daal ba moo ko rey moom. waaw. moom dañ mu jox tàkk. mais loolu la loolu la l'islam wax. waaw kay mi ngoog. mais loolu est-ce que dinañ ko appliquer ci réew mi tamit. dañ ko dañ ko nag suñ bëggee suñ parce que loolu mooy problème bu réew mi avancé de. waaw waaw dañu koy appelé nga temps yi moom rey dafa bari lool. Hmm? ah bari na de. ah loolu daal mooy dëgg moom moom daal moom su su su ma su ma su ma mbokkam baa ma jege ko moom. wóoratul de. ndaw si moom dañ ko dañ ko tereel comme def xale bi rek coono jii àttaque. ndeysaan. ndeysaan. incha allah salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf ñu koy jaajëfal kilifa googu bu baax a baax mu wax ci ni nga xamante ne noonu la lislaam wax loolu jàpp nañu ne moo ñuy noppal. ndax nag ku rey ñu rey la parce que man mënu ma concevoir léegi enquête bu am 10 jours amul. amul fenn. da ngay wax léegi da ngay rey tey ñu jàpp la suba ginnaaw suba nga ne man la. waaw loolu man maa ko def. loolu lay wan ne la nit ñi léegi àndatuñu ak seen i sago. parce que est-ce que boobu bi ñu koy def ñoom la wala. non le crime n'est jamais parfait gis nga yàlla. waaw li mu gën a fonk du ko teg yow mii mbindeef nga jël paaka di ko rendi comme malal da ngay feeñ. te moom mu defaral ko boppam moom mu defaral ko boppam. ndax fa yàlla di làq doomu aadama bëtam eggu fa. déedéet. Mbayang un crime n'est jamais parfait comme réew mii li ma lay wax moo ci nekk. Hmm. dafa am loo xam ne neexut a wax ci télé. ndax boo ko waxee nu jël suñu wax yóbbu ko feneen. dañ koy dagg léegi ndax réew mi mooy li ma la wax rek maanaam jëmu ñoo xool li ason loo di wax danga may déglu fi mu toll nii rek pour ma wax benn wax ju ndaw ñu mën ma tontu ci internet bi. te loolu c'est pas bon. ñu commenté saaga defal la ay vues yu bari leen neex. pour am nombre de vues. tey jii loolu laa lay wax ma ne la fi àdduna toll. théâtre bi rapidement ñëw ci. ci théâtre bi ñu ngi ñu ngi jeexal. daanaka parce que ci mhm. théâtre bi toll. moo waral ñuy def yenn yi. Mhm. certes. Mhm. éducation bi amatul. lu bari par rapport ak théâtre bu njëkk ba. dëgg la mais li jamono tëddee moo tax ñuy wan nii parce que tamit aussi nit ki boo koy yedd da nga koy fekk ci mondam. ndax sëñ Cheikh dama daan dégg muy wax naan koo réglul mënoo ko réglé. koo réglul mënoo ko régler. d'accord te réew mii léegi ñi regal bariwul. déedéet kilifa yi. Euh, euh, kenn régalu la. joxatuñu njaboot. déedéet defatuñu dara da ngay daw gauche droite. la sama yaay daan wax tëggal ko mboyangaan rek mu nekk ci mbedd mi. lool mais loolu moo waral nag danga koy fekk si bu dee day rab. nga fekk ko ca rab ba rab ak moom. mu dégg la ngay wax. waaw bu dee fecckat la nga fecc ak moom ca na muy feccee. Mhm. waxaale ko say message yow en tant que artiste boo xam ne da ngay jouer théâtre. Mhm. ban théâtre nga def boo xamante ni marke na la mu doon loo xamante ni sensibilisation la wala ñaax la wala wan jeune bi ne ko nii nga war a doxalee ba ci ci sa ban théâtre la. joué naa ko ci double vie. double vie. waaw mooy ban. mooy bi ma joué ak ñoom Pape Cheikh Diallo ay ñoom Kia Aydara bi may nekk papa yi Kia maanaam dama jóge Europe ñëw sama doom copinam ma bëgganteeg moom war ko. mooy bi Jordan Mbaye nekkoon. voilà muy voilà ñuy defante. double vie boobu daf ma marqué parce que am na sens trop. boobu am na sens. waaw parce que joué naa tamit SMS joué naa aussi euh, euh, cinq candidats pour un fauteuil mooy li xew ci jamono ji joué nañ ko bu Oumar Ndiaye. muy muy politique bi. mooy politique bi man joué joué naa ko y a six ans yaa a cinq ans six ans. Mm-hmm. rayante bi amoon yëpp dañ ko joué woon. d'accord wallaay lazim donc du coup yooyu yëpp. mais lu tax seen genre théâtre yooyu du aboutir ci noo xamante ne dañuy jeex dañu naan saison nangam après saison bi di ko xaar pour euh, la war a doon final nga xamante ni ki nga xamante ni moo baaxoon jub résultat am baax na. Mhm. ki nga xamante ni moo jubadi woon mu gis ne fi mu mujjee baaxul lu tax loolu suite yooyu du ngeen ko def mu jeex. waaw parce que suite. dafa am suite fin am suite yoo xam ne ni continuité lay doon. suspect lay doon yow. waaw ce sera à eux de juger. merci beaucoup merci. dafa am fin bi nag. li hmm. koy li koy indi mooy mbasaa euh, mbasaa boobu gars yi di wax nga daaneel. d'accord ndaat saay bi ndaat saay bi ñëw. am boo xamante ne nag doo am basaa basaa da nga koy def yu américain yi da ngay tourner tuuti. waaw bàyyi. bàyyi suspense seetaan nit ñi. nit ñi ñoom ñoo lay defal sa scénario. parce que nag léegi. Mm. jaratul ngay toog di di di xalaat di bind de. nit ñi ñoo lay jox scénario léegi. ci mbedd mi d'accord ndax loo joué ñoom def ci lii wax ci lii. d'accord ba tey itam euh, côté benn bi euh, yi nga xamante ni dañ koy joué di yor ay armes. Uh-huh. di agressé. Uh-huh. di rey est-ce que loolu nekk na loo xamante ni lu kii la xaaral ma dimbali ki ci li bi ba noppi uh-huh. asalaamaaleykum. alo asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. fi alhamdulilah sëñ bi tur bi naka la ak fooy wootee. maa ngi wootee Gabon. yaa ngi wootee Gabon. waaw. ayca ay rey rey dafa bëri trop. trop. mais lii lépp rek moo nit ñi dañoo yàkkamti trop. nit ñi dañoo yàkkamti. dañoo yàkkamti nit ñi dañoo bëgg ñëpp amandoo. loolu mënul nekk. amandoo dëgg la. gis nga doomu hmm. am koo xam ne ki la ëpp daf laa war ëpp ko ëpp da ko war a hmm. dëgg la. Sénégal ñun ku am rek lañ bëgg ku am lañ bëgg mais ku nekk ci problème bëgguñu ko. Hmm. loolu mooy indi problème yu nekk Sénégal. dëgg la. gis nga nit bu amee problème. Mhm. sa mbokk danga koy woo nga conseillé ko. Mhm. mais boo xoolee éducation Sénégal actuellement nii. Mhm. lu ci bëri humilier personne la ko lu mun la yedd quoi dañ lay weer. da lay weer. voilà parce que nit bu amee problème da ko war a woo moom kenn nga wax ko moom. mais mais seen bu amee problème si kër yéen ñëpp ngeen tàccu ngi oh ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk moom mu wootee Gabon euh, da ngay wax nit ki sa soxla mu dajeeg Assane ne ko sàcc wax déggin dee dajeeg keneen Assane bu ko defee Assane seet ka mu wóolu moom tamit wax ko yëf yi tasaaroo ñu jël nag naqar wi di ko wanaasu mën naa dem ba indil ñu sax problème boo xamante ni problème mu faagaagal lay doon te ñu ko woon bëgg yooyu itam ci point yi la moo tax thème bi du jeex mais damay dellu siwaat ci yéen li nga wax nit ki da nga koy fekk ca la mu nekk nga euh, jouer théâtre booba. Mhm. pour mu pour mu pour mu mën a xam li nga koy wax. Mhm. dégg naa ko ci oustaz Alioune Sall mu ne xale bi boo koy waar dangay ngay wàcc ba mancé moom. ci niveau bi mu nekkee ci nga koy waare. mais nag bu fekkente ne dañu dem ba théâtre yooyu tey daanañ gis kenn buggul. mas naa gis benn théâtre am ma xuroo jege mu am lu ñuy apporteel ba nii dañ koy setaan mu am lu ñuy apporteel mais mhm. mu fekkee théâtre bi arme la war a doon wala mu doon loo xamante ni euh, tëju ci nekk lay doon est-ce que loolu itam message bi c'est pas trop waaye non non sa cest que déggoo li ma la wax mhm. jamono day dox mhm. jamono day dox bu njëkk ba caméra yi amoon ak caméra léegi yi bokkul léegi téléphone sax day tourner film te bu njëkk ba équipe de production yi amoon bokkul ak léegi la Mbaye gis nga bu àdduna di ànd dox da ngay ànd ak moom di dox ndax même diine dala koy nangul. d'accord no non non déglul diine dala koy nangul ndax diine danaa la sax doo demee ba jëmmi jamono diine dafa ànd ak jamono. parce que tamit jamono ju nekk la fay am ak jamono ju nekk ak la fay xew. ba ci théâtre tëdd sangoo jamono dafa ànd ak statut dafa ànd ak whatsapp dafa ànd ak tiktok. théâtre tëdd sangoo benn mbàjj. waaw mais dañuy montrer dañuy wane. lu ñuy wane la xam nga c'est en. éduque c'est en yow di nga dellu si waat. Mbaye c'est en rire qu'on éduque les gens. man gis nga dant tout ça loolu yëpp. Mhm. ñu ko tënkee. Mhm. li ma lay wax Sénégal mooy problème boo xamante ni dafay nekk doon encre indélébile. te du dañ. muy lan sa ndeye ko liggéey. sa ndaye ko liggéey. ndaye ma ko fi bàyyi moo ko fi xaar moo ko liggéey moo sonal nit ñi les gens sont aigris à cause de ça. lu tax mu sonal nit ñi loolu. waaw mais parce que Mbaye ngi mënuma comprendre Mbaye ngi wërsëg gi suñu borom joxe. Mhm. ñu ne sa ndaye ko liggéey. Mbaye nit na ba dee te amul wërsëg. la. ndax yàllaay maye. yàllaay maye nit bu doon may boppam kenn du jaxal. ñëpp dañoo bëgg doon litre te walaat du ñàkki gaay kon bu ñëpp doon jaay kenn du jënd. dëgg la. àdduna nag dafa am nu muy doxee. dëgg la. ni ngay xëyee di guux noonu la nit xëyee di guux kaasi di wuute. waaw mais wërsëg yi bokkul. bokkul et pourtant booy seet ba jamonoy am ba léegi. musoo mm. yeewu ñu ne la koñ bee day am na fukk yu fa dee ndax dañoo xiif. dëgg la wallaay dëgg la. ndax ku xëy suñu borom jox la pepp. jox la pepp. kon nanu gëm yàlla. dëgg la te bàyyi tagg yooyu ñuy tagg ci kër yi. parce que jamono su ko defee xale bi koy dégg yaakaar ne xëy na peut-être ndeyam liggéeyul liggéeyul dara. Barça ak Barsax bii nga xam te ni tey banlieue ba kër góor am na ñetti nit yu dee ci kër yi. Mhm. mais loolu ko indi. Mhm. parce que borom kër yi dañuy toog mënatuñu retraité nañu. Mhm. seen soxna yi toog. kenn doomam xaw ci tekki am poste tuuti. waaw bàyyi jag ñëpp naan ko woy parce que sa yaay dafa ma nangul. non loolu baaxul boo ko defee frustration day am. dëgg la. ki nga te ne dafa sëy ba dee te doomam amul wërsëg. Mhm. bëgg na jël oram wala lu mu am jaay ko jox doomam pour mu tekki. pour mu tekki parce que xas la ci moom. yàlla na doom ji am jom. et loolu c'est dangereux. Mhm. c'est dangereux. dëgg la kon donc Sénégal fi mu toll nii. Mhm. ñun ñoo war a replier wu teewaat suñuy jikko suñuy bëgg-bëgg suñuy am-am te bàyyi di wane ne képp ku solo rek am nga xaalis. nañu bàyyi loolu. paas bi ma indi sax problème la woon. merci beaucoup nañu bàyyi ku jekk ñu ne la tekki nga. <laughs> Mbayang c'est dangereux. oui Mbayang nañu moytu loolu. nañu moytu loolu. Mbayang nañu bàyyi xeebante bi. tout ce qui brille n'est pas de l'or. déedéet. Mm-hmm. nañu bàyyi xeebante bi Mbayang. Mm-hmm. Mm-hmm. Mbayang nañu gëm yàlla. te xam ni yàllaa fi ne. wallahi te nangu ne yàlla day jël ay nit ñu jiite. ki jiite nañ topp ci gannaawam. dëgg la. waxuma nag waxu présidence de. day ci kër yi ci mbedd yi laay wax. taluñu ko parce que tamit sama wax moom nay leer. Hmm. ci présidence waxuma ko dama ne. ci kër yi. Hmm. ki suñu boroom jiital. Hmm. nañ ko topp. kër yi. ah ci kër yi. d'accord parce que lépp ci kër yi la njëkkee. d'accord ah. mais du tey itam ki nga xamante ni nekkul taaw. te yàlla dogal itam yàlla dénk ko wërsëg ba mu téye cër bi mu war a jox taaw bi mënul dara mu jox ko ko ba pare di diisoo ak magam. mais loolu la magam ci lépp. mais loolu la mag ngi daan def. mag ñi dañ daan ñëw waaye tey boo amee oom oom la rek. ah non tey moom yow la ñuy jiital su ko defee xale yeeg ñeneen ñi nga xamante ni dañuy révolté mooy indi yu mel nii ci biir kër yi. mais loolu loolu laa lay wax ne la fi jamono toll la parce que nit ñi gisatuñu dara la dul am-am. gis nga gis mais parce que mbay nit ñi gëmatuñu wóolatuñu yàlla. am-am day ku mu tax a bew guddi yi ñu toll. remaniement maam yàlla toujours dama koy wax. yàlla a gaaw yàlla du nit. yàlla du nit dama dégg benn nit wax ko wax boobu dama ko téye mu ne remaniement maam yàlla. Ah. dafa gaaw te ba pare du consulter kenn. déedéet à l' de deux mu indi changement de situation. brusquement kon donc. dara jaru fee ñaaw. déedéet. te li ngay yor yor ko sa poset bi sa compte banque bi mënoo cee lekk lu la ëpp li ngay lekk. mënoo cee tëdd lu weesu benn lal. mënoo cee naan loolu lu weesu ndox mu sedd. te di nga dem sax ba benn alal bi boo ko yoree danga koy yor rek ñu tere la suukar. tere la xoram. tere la ndawalu guddi. ne la soow mi moytu ko. loo koy doyee. sa coono. immeuble yu dul jeex yoo xamante ne daf lay leer ni boo fiy jógee fi nga koy bàyyi kon jaru li li li war mooy ànd ak dal li nga am nga lekk ko su la yàlla dénkee teraanga nga defal ci nit ñi te yàlla tax point barre. ëllëg boo demee fee fekk ko fa. merci beaucoup donc bala ñoo tàggoo may jaajëfal bu baax a baax sama jeeg bi nga xamante ni moo jaar fii. nuyu bu baax Fatma Ndiaye nekk fële ca Rosso waaye Fatma Ndiaye itam nekk Yoff APEX si maa ngi koy nuyu bu baax a baax yaay Ndey Fàllu maa ngi koy nuyu di ko kontaane waaye sama jeeg bi nga xamante ni mooy aawa euh, taaw awo Momar Thiam moo jaar fii man nee naa leen sànq maa ngi leex naa leen njëkk yu rambaaj yi man sama rambaaj samay jeeg gisuñu ko lu ñu yëkkati mën lañ ko yéene dañ may sotoo donc ndey dëcc si la moo jaar fii Kor Momar tabarkal la jënd tissu bi ñaw ko euh, jënd accessoire yéeg yëpp jox la nga mën ko am nag ci 77 677 53 47 77 677 53 47 ma koy kontaane bu baax di kontaane doon jeego nekk fii ci kër gi mhm. don jeego yi euh, dañ koy jàppe saale ak théâtre kat mais xol yi ngeen di yor yéen théâtre kat yi mhm. ak ñiy kafal nit ñi ñuy ree kenn yoru ko doon jeego nag ci la bokk maa ngi koy nuyu bu baax di ko kontaane dama feebar doon jeego ñëw taxaw te gisuma ko nag lépp ci liaison téléphonique la koy doxee kon euh, ndoyle bu maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar nii rek ngay mën a mel from Rio nga ñoo bokk Rufisque gi jàmm rek ngay am ki nga xamante ni mooy élage Hadj Taal Ngol Ngol kenn du moom moom moom defe naa ni euh, taal geeg caam gi daf ko topp ba mu jeex tàkk kon El Hadj Tall yàlla na sa jàmm yàgg yàlla yokk sa sutura ak sa xewal ak sa mën euh, ma bàyyi la nga tàggoo ak mbokk yi tàggoo boo xamante ni nag dama koy jël mais ci ñu jeexalee ko parce que bëgguma woon mu doon débat ci manifestation bi nga xamante ni moo amoon récemment te am ñett ñu ci ñàkk seen bakken mm-hmm. réew mi dafa naqaree waxee ba boo dégg yëkkatee débat dina am keneen ku ca dugg wax ca leneen mm-hmm. te waxuñu pour kii waxuñu pour kaa man xam nga lu may wax dama ci am yaram bu daw li ma ci amee yaram bu daw bu ma metti mooy dama ci dégg koo xamante ni dañ ne buntu Masalikul Jinaan la nekkoon. nekkoon handicapé. Euh, ñàkk ba kenam mu leer na la ni biir matelas yi mu nekk ba muy takk mi ngi yuuxu. mais munuñu ko dégg. parce que bruit oto yi xëy na. Mhm. wala bruit nit ñuy yuuxoo sànnante bi tax na ba kenn mënu koo dégg te mënul dawal boppam. may ñaan muy opposition muy président de la république man dama ko seet ci sama bopp su ma toogee sama kër wallahi sama doom a ngi nii mag ma ma ànd. su dara nee tes du ma jóg duma daw parce que comme je vois pas bien dama naan loolu lan la. mais dina am tiitaange goo xamante ni day métti ci man donc ñi nga xamante ni ñoo ngi seen wàllu bopp ñooy ay handicapé tey silmaxa yi nekk ci mbedd mi mu leeral ni yow sa freer ba nekk ci kër gi moo tax muy yalwaan wala sa sœur moo tax muy yalwaan pour lu mu leen dundale de leen leen bàyyi xel ci fitna gi ñuy yee ci réew mi nañ leen di bàyyi xel ci loolu. bàyyi xel ñi mënul daw bàyyi xel ñi mënul gis bàyyi xel ñi mënul seen bopp dara te seeni euh, dépense ñu ngi koy yaakaaree taxaw ci mbedd mi booy taal lacrymogène wala ngay war a woote ndaje sa xel ne càpp ci silmaxa si nga xamante ni wala ki lakk bërki démb masaalikul jinaan nga ne ah bu dee président la naa bàyyi lépp ndax jàmm am bu dee opposition la nga ne naa bàyyi lépp ndax jàmm am ndax nag bu fekkente ni da ngeen ñoo bëgg gouverner ba pare bala ngeen ñoo gouverner jeexal ñu wala ki ñuy gouverner jeexal ñu bu boobaa day metti mhm. day metti loolu ci ñun parce que euh, wàllu askan wi la wax mhm. bu ñu jeexee ku ñuy wàllu moo ma jaaxal de bennoo bokk yaakaar lañu wax pour ñun ñu yaakaar leen bu ñu jeexalee ku ñuy yaakaar te ñoo ñoo fi ne nañ ñu sala xalaat waxuma ñu xalaat kii ak mais xalaat leen handicapé yi ci mbedd mi seen xel di dem ci indi handicapé bi génn àddina ci buntu Masalikul Jinaan ñu ngi koy jaale ay mbokkam bu baax ma bàyyi la nga tàggoo waaw li may tàggoo day gàtt mhm. maa ngi ziar sama kilifa mhm. Pape Birahim Fall Pape Birahim Fall waaw actuellement moom mooy xalif sama ñoom yaay mhm. parce que magam dafa génn àdduna mooy ki ma wax ci suba Pape Birahim te dëkk Caaroy Azur ndeysaan moom sama xarit di sama di sama sëriñ aussi di ziar tamit Mika Diallo Mika ah, doomu ndeyu Bangoura. xaritu Papa Diop Toulouse. ndeysaan mi ka Asegna. Mhm. kooku sama fii la nekk sama xol. moo jël doomam. ndeysaan bàyyile ma ko. ndeysaan waaw kon kooku tamit maa ngi koy ziar. Mhm. Alioune Badara Touba. Mhm. yow it maa ngi lay ziar lu baree bari. Papa Simon aussi et di ziar aussi euh, ndax sekk Ndaanaan di magu Sodo Bousso. di Sodo ku baax. Ah, Seck ndaanaan nag ñuy seetaan moom vraiment c'est le grand frère Assodou Bousso mooy maa ngi koy ziar muy sama dëkkandoo aussi ah non di euh, ah góoru Marie yow moom big up laa lay def quoi. di ziar tamit sama njaboot geeg samay xarit ak samay. am di jàmm ak sama yaay tamit ngay ngay si yow tey dama lay may buzz. ndeysaan te may naa la buzz. ndeysaan <laughs> macha allah merci beaucoup. jërëjëf. ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jëfal ñëpp ñi nga xamante ni àndoon nañu ak ñun du fàtte ki nga xamante ni mooy Wali Diagne ma nga fële ca cité millionnaire ma ngi koy nuyu bu baax a baax Kélédor ak Ilimane di ko ñaanal jàmm sama dëkkandoo la di nuyu waa cité millionnaire yëpp nag di leen kontaane ndax. nee ngeen ma bienvenue waaye man tamit nee naa leen mucho gracias maa leen di di leen sant gërëm équipe technique bi nga xamante ni ñoom laa àndaloon waaye di gërëm bu baax a baax Mami Ndama Seck di ko ñaanal jàmm ñaanal jàmm ki nga xamante ni mooy Njañ ndax ku tax nga gën ko koo waru la gën euh, boo taxawee moom rek sant ko gërëm ko kon euh, Njañ Jóob maa ngi koy nuyu bu baax di ko kontaane di kontaane ki nga xamante ni moom mooy Mami ma Seck ñaareel xaritu jëkkëram maa ngi koy ziar bu baax ziar ñëpp ñi ñu àndaloon équipe technique bi jaa ngeen jëf rendez-vous allah allahu taala samedi prochain ñu dellu siwaat àndaat ak yéen ci kàttanu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fi amaanillah jaa ngeen jëf